alxuraan bu ñu jël defar ko ci drapeau bi tuddee alxuraan bi le noble coran arc en drapeau exact bu góor jigéen lañ ci def ci biir alxuraan bi dama nekk di foo sama mbokk aadama moo ma ko jox pour ma gëstu ko ko imaam Diop won ko mbooloo bi may foo di xool ne xaama jël yenn aayaat yi nga xam ne dafay wax ci asxaabu lut ci suratu araf aaya 80 ba 84 suratu huut surat surat yu yëpp ma koy jël benn par benn di xool aaya yooyu nas bi ci lugatul arabiya laaluñu ko waaye traduction française bi soppi nañ ko maanaam le sens dafa dellu ci jàngale boobu Ludovic waxoon ne góor jigéen araamul ci islaam et il défend que Sodome ak Gomorre bu alxuraan tudd te Bible tudd ko yàlla alagu leen ndax dañoo nekk ay góor jigéen waaye fen alak parce que ñu doon ay gan